sentiment de satisfaction. Ils ont bien joué. Hein. Ça fait partie du sport de perdre de gagner. Mais pour moi, non, ils ont bien joué. Hein. une bonne défense. Les deux entraîneurs ont mis des tactiques l'un vers l'autre. l'année, dans deux ans ou dans, quatre ans pour gagner. On a une bonne équipe on a fait un bon travail. Il faut être, play, on perd devant quelqu'un qui joue pour gagner. Et nous aussi, on a joué pour gagner. Euh, gis situation bi nu mu demee encore on a perdu euh, ban sentiment nga am. xanaa ah, désolation rek et très triste et très énervé contre Mbaye <laughs> Je pense qu'il nous a coûté cher pendant toute la compétition. Franchement, c'est un bon parce que Cannes bi passé, il a fait beaucoup de belles choses, mais cette année, ça n'était pas là et à lui Cissé, je sais pas, il s'est obstiné à laisser dans le terrain. Du coup, regarde, il nous a coûté une belle occasion et sentiment de déception, sentiment de frustration. Encore une fois, j'ai dit qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. Aujourd'hui, les Algériens l'ont si bien compris qu'ils n'ont pas joué, ils ont cherché à gagner. Nous, nous avons surtout cherché à jouer. Et le jeu des Sénégalais était trop prévisible. Ils ne lâchaient pas trop les ballons parce qu'ils voulaient jouer et une finale ne se joue pas. voilà sa biir wax sax yaa ngi bëggoon wax victoire tellement que dañoo assuré woon ne tey coupe bi dina Sénégal franchement parler à grande surprise di am bon nañ ko santé yàlla rek peut-être quoi xëy na depuis ans franchement parler on est champion nga ñëw ba final donc euh, yàlla euh, daf lii donc euh, ñu xaar beneen année incha allah lélifinte ñu defaraat bu baax pour yow lan nga gis ne waroon nañ ko def te defuñu ko en fait côté coach bi souvent moom la ñuy laal quoi en fait cuune Aliou Cissé bi savoir gars yi moom la ñuy touché donc match bi demee deuxième mi-temps xam nga ne automatiquement yow bii nga soxla donc changement yi na gaaw bu xaar ba ay 80 bi jeex na déjà nga bëgg def changement automatiquement ça sera autre chose nañu de te aussi bett nañu franchement on croyait que bii moom ça sera bon quoi mooy loolu yàlla baax na quoi nañ leen dolli ñaanal rek yàlla baax na. défaite bi moom euh, comme ni ko Sénégalais yëpp dundee waaye nag euh, boo xoolee biir match bi défaite bi du la bett. ndax daanaka dafa dessiné woon bi match bi tàmbalee ndax malheureusement moom boo xoolee équipe algérienne yi mel na ne ñoo leen ko gënoon a bëgg waaye naar yi defati nañ seen manin vraiment loolu la daal comme ni ko Sénégal yëpp dundee ñu am ci naqar lool nag ndax jege woon nañ ko daal cette fois ci. ah affaire bi métti nañu trop parce que ba final ñu xalaatoon coupe bi fii ñëpp xalaat coupe bi franchement mais nag t'inquiète on n'a pas démérité lu mu métti métti gaa indiwuñu coupe di coupe bi de mais bokk neen deuxième champion d'Afrique. merci ba pare am neen ko mais thank you on de mérite ba